salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal euh, ñu fi dalal kii di Mara Ndiaye nekk secretaire général association des sénégalais en Libye euh, Mara ginnaaw bu la dalalee fii ci kër gi muy sa kër parce que xam naa ne yéen ñi nekk ci diaspora bi Sénégal foofu ngeen di nemmeekoo li xew fii ci réew mi. Mhm. ñoo ngi lay jaajëfal ci loolu déjà. Mhm. ak taamu bi nga xam ne taamu ngeen ko Sénégal pour man fee. waxtaan ak sénégalais yooyu nga xam ne moom ngeen di dund ci dëkk boobu di Libye. Mhm. xamal ñu tey lan mooy réellement lan mooy libi mhm. parce que dëkk boo xam ne dëkk nga fa cinq ans wala sax di ko weesu. Mhm. ñàkkul na tey xam nga ko ñu bàyyi la rek nga nu yokk sénégalais yi ak internet yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci jamono jii nii. dëgg la waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum jasporaa bi. Euh, rawatina libi gu ma jógee euh, bon commencé ko ci suñu président association docteur Demba Kandé ba ci suuf. Euh, di la nuyu waaw Demba Kandé docteur Demba Kandé. Ah, jeex na tàkk kon tey waxtaan wi day neex. <laughs> mooy suñu président association. bon di la nuyu tamit yow Kandé vraiment bon di la jaajëfal di rafetlu lépp ko vraiment di nuyu àdduna bi yëpp. lan mooy njëriñu association. sénégalais yi nga xam ne fii la ñu bàyyeekoo dem dëkk Libye ban ban ban rôle lay jouer foofu réellement. voilà loolu dinaa ci sawar lool parce que njariñu association boo déggee association kuréel la boo xamante ne bii euh, dañoo booloo bokk benn bëgg-bëgg surtout nag benn nga xamante ne bii tey jii ni ñun moom la ñor au niveau de Libye dañoo booloo bokk benn bëgg-bëgg ba pare di def entre-aide ci suñu biir quoi maanaam di dimbalante ci côté bépp. te en plus amaan na beneen njariñ boo xamante ni bi tey mun naa ne suñu association boobu noonu au niveau de libi mooy suñu ambassade mooy suñu consul mooy suñu lépp vraiment kon euh, rôle association loolu la muy mbooloo mu takku mbooloo doon benn say bon ngir xeex li nga xamante ni bi mooy intérêt collectif quoi way loolu moom mooy rôle association surtout ba nga xamante ni moom la ñor au niveau de Libye quoi. ndax ngeen di def pour recenser sénégalais yi nga xam ne voilà pour recensement bi nag euh, yomb na yombul parce que euh, début bi euh, li taxoon ñu am benn nombre bi parce que li bi dafa yaatu. des fois mën nga bokk ak nit sax benn koñ doo xam ne sénégalais la. parce que bu la ubbilut boppam won la boppam wala benn instant nii mu romb rek dégg nga wax olof parce que ñu ci bëri. dañ lay romb dégg soit ngay wax téléphone wax olof rek mu xam ne mbokk sénégalais la jege la wala mu dégg na ay sénégalais ñu ngi fii nii ci koñ bi benn instant nii xam nga développe ba jege leen pour nga mën a xam ne sénégalais la mais ci comme euh, recensement boobu noonu bi yàlla dogalee benn instant nii ñu dajewaat bon renouveler waat association parce que association bi yàggoon na. mais xam nga rek ak problème yi nga doon dégg li beeg yooyu noonu dem ba benn instant mu def benn stand by peut-être doxut xam nga ñenn ñi tas ñu defaat euh, ñu woote waat bon toog renouveler waat association bi biñ ko renouveler nag yàlla dafa dogal li bi dafa am ay pàcc am ay secteur am ay quartier quoi mm-hmm. léegi quartier bu ne ñu fexe faa xam nit nit boo xamante ni bii dañ la def délégué voilà nga nekk délégué de quartier wala nga nekk délégué ci région bi nga nekk mm-hmm. bon ci biir euh, délégué boobu noonu nga nekk nag après yow yaay sensibiliser koñ bu nga nekk da nga fay sensibiliser sa moroom sa moroom sensibiliser keneen ñu ubbi benn panel. tudde ko euh, groupe entre aide association entre des ressortissants sénégalais en Libye. groupe boobu noonu nag benn instant nii bon euh, recensement yu bëri ci lañ ko defee parce que délégué yi kenn ku ne ci dafa nekk administrateur bon. li ngay ñëw boo ñëwee da nga leen di sensibiliser yàlla dogal na bon comme li bi demee na nii te yàlla dogal na peut-être am nañ suñu yeneen morom supposons maliens yi wala burkinabé yi wala ñëpp seen ay ambassade ñu ngi foofu wala seen ay consul xam nga amuñu benn problème comme yàlla dogal na ñu Sénégal peut-être association la ñu nattoo bon bu ñu sañoon benn instant nii ngeen intégré association bi. Mm-hmm. d'ailleurs sax ci biir loolu noonu dinañ profité présenter la suñu carte association. Mm-hmm. da ngay gis ne carte association bi nii sax ñu ci bëri. carte mm-hmm. association bi gis nga. moom moo nekk nii carte association bi nii bon ñu ci bëri sax yàlla dogal na bi ñuy dugg li bi àndaale ñu benn papier mais bi ñu intégré association bi suñu boroom dogal ñoom ñu am carte association te du n'importe comment lañ koy amee. Mm, il mu leer nañ ne. day leer nañ que ne sénégalais nga. waaw parce que am na ci ñoo xamante ne bii dañoo bëgg lu yomb. même mën nañoo bañ a nekk sénégalais mais bëgg carte bi parce que carte bi dafa fiable parce que association bi nii. Euh, état libyen da ko reconnaître ñu ci bëri sax des fois dañuy génn liggéey yi booba yi mën nañ leen a jàpp booba mën naa ne mooy policier mooy ñuy monter ci tali bi quoi. mën nañ leen a jàpp bu ñu leen présente carte bi automatiquement dañuy xam ne peut-être ñii nii sénégalais lañ dañ leen di bàyyi ngeen dem. Hmm. Euh, bañ bëgg lu yomb loolu nag moo tax ba ñi nga xamante ne bii ñooy ay délégué. nekk ci secteur yi di recenser nit ñi. Hmm. dañ lay wax même boo yorul foofu noonu benn papier nga woote fii nii Sénégal soit ñu envoyé la sa extrait de naissance. Mm. wala ñu ci bëri tamit seen i carte d'identité fii lañ ko bàyyi. Mm. ñu envoyé la ko ci WhatsApp. nga envoyé ko kooku noonu ba mu leer bu ko defee mu def ko ci registre bi. Mm. parce que registre yëpp mu ngi ak man ma garder quoi. ñu def ko ci registre bi ba pare door la remplir sa carte dem président signé ko. caché ko ñu plastifié la ko doo la ko jox mais du da ngay ñëw rek nañu sénégalais nga nii laa tudd at yi la am sama yaay nii la tudd sama papa nii la tudd ñu jox la carte du demee noonu. da ñuy won papier bu leer nañ soit nga génn ñu sa passeport boo amul passeport am nga carte d'identité boo amul carte d'identité mën nga woote fii nii Sénégal soit ñu envoyé sa extrait de naissance wala ñu ñu ci bëri tamit dañoo déposé woon peut-être seen ay euh, euh, récépissé pour seen carte d'identité jotuñu koo Ah, wala ñu envoyé ñu récépissé boobu ñoon ñu xam ne kat carrément kii nii ñuy waxal euh, sénégalais la te yemuñu ci loolu même registre bi en cas de problème maanaam supposons boo amee problème kan lañ mën a contacter Sénégal soit sa papa wala sa yaay wala sa jabar wala sa lépp dafay nekk ci registre bi nga xamante ni bi tey ji ni supposons exemple bu ñu nee Mara am na problème rek mm-hmm. du ñu nekk fi di wër naan ay Mara kan la fi xam a yoonul registre bi la ñu ubbi directement gis ne ah Mara mii de joxoon nañu numéro rakam wala joxoon nañu numéro magam wala joxoon nañu numéro papaam kooku noonu dinañ ko mën a contacter directement quoi mm-hmm. loolu mooy euh, recensement bi noonu la ñuy recenser ba yàlla dogal na biir Tripoli rek mm-hmm. boo xoolee recensement yi actuellement nii toll na ci ay trois cent et ci biir Tripoli biir Tripoli yi. Hmm. waaw te te xaaj xaajaat bi bindaguñ ko te Sabaa ñëwagul Benghazi ñëwagul parce que hmm. Sabaa ñoom am nañ seen euh, section. Hmm. Benghazi am nañ seen section en plus euh, euh, Misrata aussi am nañ seen section maa ngi leen di saluer sax au passage. sama gars yi nekk foofu noonu yëpp président yeeg secretaire générau yeeg ñëpp maa ngi leen di nuyu quoi. vraiment côté recensement bi noonu la ko demee mais yéen seen moom amu soo leen am ay problème diplomatique maanaam ay kayitu yoo xam ne état bi da koy imposer étranger yi pour ñu mën fa toog monsieur le Kane. actuellement nii may wax ak yow nii. yàlla dafa dogal maa ngi ñëw Sénégal depuis le vingt cinq passé. Hmm. démb rek président mi ngi doon souligner lu mel noonu ci ci sunu panel bi parce que démb rek ñu ngi ci doon waxtaan. parce que euh, instant bi nii dañoo am représentant bu bees Libye maanaam dañoo am koo xamante ne bi moom lañ teg pour l'instant mu gérer intérim bi. foofu ci Libye waaw ci euh, foofu ci Libye autorité diplomatique autorité diplomatique boo xamante ni état du Sénégal moo ko fa Sénégal non non ah bi nii xam nga Libye amul président actuellement nii nag dafa am koo xamante ni bi moom moo gérer intérim bi moom lañ fa tegagun waaw waaw pour mu gérer intérim bi le fait que ñuy organiser pour créer ay élection léegi ci biir loolu noonu nag semaine bii nii passé gars yi dañoo génne benn euh, circulaire comme quoi que mm-hmm. tey jii ni dafa am loo xamante ne bi moom la ñuy laaj bépp étranger bu fa nekk. muy carnet de vaccination. Hmm. carnet de vaccination boo xamante ne bi soit da ngay am papier. Hmm. bon dem ci hôpital du n'importe quel hôpital quoi. Hmm. hôpital yu fiable bi hôpital gouvernement yi ñu xool sa deret boo xamante ne bi amoo benn feebar amoo dara dañ lay exiger nga am carte boobu noonu. parce que barki démboo Ndiaye lañ lancé appel boobu noonu démb sax président mu ngi leen ci sensibiliser quoi. di ko lancé waale comme ça gars yi ku ci seetaan tamit xam ne peut-être président ak ñi mu àndal ñu ngi dox ci loolu. ji ma def le tout gën a yokk recensement yi yaa ngi dégg jege association bi. au moins ñu mën a am carte boo xamante ne bi tey jii nii bu ñu demee hôpital dinañ mën a xam ne kii kat bon sénégalais la bon bu ñu la xoolee sa date baax sa lépp baax ñu jox la carte boo xamante ne bi tey jii booy circuler ci dëkk bi doo am benn coono quoi. way ma lancé waat appel comme quoi que ñoom ñëpp nañu dem jiima lijjanti ci carte boobu parce que dëkk boo ci nekkee ñu ne la kat dëkk bi lii ak lii ak lii nii lañ bëgg boo bañee tooñ. wala nga bañ a waroog sart dëkk boobu noonu. jiima la def le tout la ñuy laaj nga am ko quoi. la moo tax Sénégal amul ambassade euh, Libye amu fa tamit euh, lii di consulat. lu loolu. voilà foofu dinaa ciy sawar peut-être euh, Sénégal ndeysaan dañoo jox dañoo jox étiquette boo xamante ni bii nañu jàppee ne noonu la li bi demee ak ni libi bi demee actuellement nii c'est diamétralement opposé. ma lancé waale appel ci mm-hmm. gouvernement Sénégal ñun dañuy ñaan rek te yàlla tax ñu def le tout gestuñu ci côté boobu parce que boo xoolee suñu problème majeur suñu problème majeur problème mu papier la. te li ñu ko waral li ko waral lépp mooy ñàkk consul ak ñàkk ambasade parce que depuis 2014 la ambassade Sénégal bi nekkoon Libye jóge Libye ñëw Sénégal booba ba léegi amul benn autorité administrative bu taxaw foofu walla benn délégué boo xamante ne bi tey nii ñëw nga libi pour di saytu pour ñu jiima am ay papiers soit ay passeport walla leneen depuis 2014. Hmm. amu fa Tunisie la ñu rattaché mais depuis lors tamit xaw ma nu mu demee noonu. dëgg yàlla amul kenn koo xamante ni bii jógee nga foofu noonu ñëw pour gestu ñu ñun suñu ay jafe-jafe. Mm-hmm. te problème mu passeport yooyu noonu dafa demee noo xamante ni bii tey jii ni ñu bëri loolu yàq na seen liggéey. Mm. ñu bëri loolu yàq na seen liggéey parce que passeport boobu noonu mooy tax nga am séjour. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne bii ci ay entreprise yu mag la ñuy liggéey. Mm. te supposons tey ji ni bu sa passeport jeexee mënoo renouveler sa séjour. séjour boobu noonu boo ko renouveler wut mënoo renouveler sa contrat. Mm. te contrat boo ko renouveler wut euh, danga koy ñàkk tey exemple mën naa la woon lii mooy séjour. Mm. tey jii nii bon lii mooy séjour. Mm-hmm. gis nga ko. Mm-hmm. bu yàlla dogalee nag sa passeport jeex séjour bii nii doo ko mën a renouveler. Mm. lii mooy visa. pour nga mën a dem ñëw. Mm-hmm. moom la arab naan xuruj aawda. maanaam pour nga mën a. dem jóge Libi ñëw Sénégal jógewaat Sénégal delluwaat Libi léegi nag lii bu sa passeport jeexee mënoo ko am yàlla dogal nga bàyyi fa njaboot parce que bëri na ñoo xamante ne bii tey seen ay jabara nga fa seen ay doom a nga fa te seen papa ak seen yaay ñu ngi fii nii Sénégal seen ay frère seen ay lépp namm nañ leen mais tey jii nii mënuñu bàyyi seen njaboot gu sew googu noonu di ñëw Sénégal ndax wóoru leen ndax bu ñëwee dinañ mën a delluwaatam de ci dëkk boo xamante ne bii mën naa ne peut-être bopp sa bopp la parce que dëkku charia la. tey jii nii li ñuy nekk nekk nekk nekk ay su ñu nekkoon mag ak rak man ma am fa jabar déclarer carrément ne am naa fa jabar parce que foofu noonu da ngay am papier de mariage da am lépp. nga dëkk ci koñ boo xamante ne bii yow ak libyen yéen a fa dëkk. du ñu nangu n'importe qui di dugg sa kër. parce que ñoom ni ñuy dundee lañ bëgg yow nga koy dundee. dëgg la ñoo bokk ndey ak baay ñooy ñoom xooluñu lool l'essentiel am nga jabar am nga doom yow ak sa jabar ak sa doom yéen a war a dëkk ok léegi nag su fekkee ne benn essence ni tey jii nii yow bëgg nga ñëw Sénégal pour seet si sa njaboot fii nii peut-être benn benn benn benn un mois bi ngay ñëw vacance wala benn deux mois garaawut parce que sa lépp mën nga koo régler garaawut kenn du dem di soutenir sa jabar wala dara wala su fekkee ne sa jabar day génn di liggéey parce que jigéen ñaa nga fay liggéey en pagaille am na jigéen ñoo xamante ni ay restaurant lañ fa yor am na jigéen ñoo xamante ni benn instant ni ñu ngi liggéey entreprise am na ci sax ay enseignante tey exemple euh, euh, mu monsieur Demba Kandé soxnaam muy euh, madame Kandé maa ngi koy nuyu au passage moom enseignante la foofu day jàngale xam nga ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ay jafe-jafe la yoo xamante ni bii dara ko lu dul manque de passeport moo tax ba benn instant. léegi yan jéego ngeen di dox pour que vraiment Sénégal dellu fa ubbi fa ambassade wala au pire des cas benn consul. voilà comme jéego yi nekk comme jéego yi parce que benn instant ni comme mënuñu am accès directement ci président comme tey nii fu mel ni Sénégal fu ci mel ni yeneen sites yi bu fi toogee peut-être wax suñu doléance yàlla mun na dogal mu àgg ci président. quoi est-ce que bi ab na bi pour que Sénégal mën a am courage ubbi euh, fee ambassade. tout récemment rek ngénte ngénte maa ngi nuyu sama vice président au passage ngénteem bi mu mujj a def tout récemment rek jambaru jabaru jabaru ambassade Mali bi mu ngi fa woon. Mali nga fa ak seen ambassade Burkina nga fa ak seen ambasad Niger nga fa ak seen ambasad te jàpp naa ne ñoo ñu noonu benn instant nii bu fekkee ne relation diplomatique rek à travers le monde ñu lijjanti lu Sénégal mënul lijjanti. peut-être nag bon étiquette bi nit ñi jox li bi te amul li bi mën na am tamit moom moo tiitloo gouvernement Sénégal jéem ngeen rencontré le ministre benn instant yi même bi may ñëw association bi bind na lettre pour moom mais comme li ñuy wax rek Sénégal benn instant yi des fois pour nga am accès ci nit mhm. dafay xaw a jafe quoi mhm, mhm. mais ñu ngi lancé appel même même président de la république son excellence ñu ngi lancé appel tey jii nii mu recevoir ñëw parce que tey nii bu ñu recevoirut tête du mën a xam exactement lan moo nekk Libye parce que dafa am ñu bëri dafa am ñu bëri ñoo xamante ne bi peut-être nekk nañ Libye ba seen temps jeex Libye ñu ñëw Sénégal fii nii mën a ci ñoo dellu duñ mës a wax jàmm Libye loolu doon tamit gouvernement Sénégal na ci bàyyi xel. ñoo xamante ne bii seen temps dafa jeex Libye ba Libye di neex lañ nekkoon Libye dem nañ ba jeexal Libye waroon na ñëw Sénégal tey jii nii parce que ñu ngi jokkoog ñi nga xamante ne bii ñooy dund Libye actuellement nii mm-hmm. xam nañ. moom naka la fa demee au lieu que ñooñ ñu dox intermédiaire suñu diggante ak état wu Sénégal pour ñu mën ñoo appuyer duñ ko def peut-être dañuy xool fu seen ceeb tooye wala ñuy xool benn instant lu leen arrangé mais tey jii nii man maa ngi lancé appel même bu dul président de la république ku sës ci ñooñ. invité tey jii nii ñu mel ni man ñu toog jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom xamal leen carrément réalité bi nga xamante ne bi moom moo nekk li bi quoi. way noonu la fa demee. accès bi mooy suñu problème. mais suñu sañoon président recevoir ñu suba suba ñu toog ak moom man ko xamal ne ko libi dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw libi pour traverser mais dafa am ñoo xamante ne bii libi rek moo leen tax a jóg. dañoo ñëw libi pour seen destination. merci beaucoup. ñooñu ñooñu amuñu problème. amuñu benn problème. kon mbir yi ñuy woone Égypte esclavage traite négrière entre guillemets yooyu amu fa. yooyu benn instant yi peut-être nit ni du ma ne amu fa. mais nit ñi ni ko nit ñi interprété. ni ko nit ñi interprété ak ni mu demee du benn. Hmm. parce que foofu noonu ay kaso la mooy ñiy traversé ci ndox mi. Hmm. yàlla dafay dogal tey jii euh, libi am na armée libien boo xamante ne benn instant nii dañuy nekk ci ndox mi. waaw Libye bëgguñu ko traversé dem dem Italie. jaar ci ndox yi. Libye bëgguñu ko même des fois sax dangay ngay da ngay da ngay war a dem liggéeyi ak naar. lim lay jëkk a laaj mooy baa toog liggéey moo la tax a jóg su fekkee ne ci ndox mi nga bëgg dem du la jël nga liggéey parce que bëgguñu nga liggéey ñaari fan ñett nga traversé pour dem. dem ok. Mhm. moo tax ba des fois ñu ci bëri ñun ñii euh, des fois dañuy am problème dañuy sonn des fois dañuy am ay xaritu naar yoo xamante ni dañuy bëgg ku leen liggéeyal. Mhm. ñu gis nit ñëw yor métier parce que Sénégal tamit macha allah ñu ci bëri bu ñuy duggali bi seen métier la ñuy duggaale ñu ci bëri tamit xam nga métier bi ñu am fa lañ ko jànge affaire yooyu noonu quoi mais supposons bu fekkee ne tey jii nii bon da ngaa nekk ku mel ni man peut-être am connaissance benn connaissance bi ci dëkk bi des fois naar day ñëw ne la man umal laa bëgg quoi maanaam mooy ku koy liggéeyal ku xam liggéey bi ku bëgg liggéey bi mais yow côté boobu noonu yow yaa ngi tiit parce que li ngay tiit mooy est-ce que kii nii su ma ko booleeg naar bi du liggéey ñaari fan wala mu liggéey ba am paasam jéggi ko fi dem ci gaal yi quoi loolu noonu yëpp koy sóoraale moo tax ba des fois ñun dañuy am problème boo xamante ni bi pour ñu boole nit ak naar sax problème la quoi parce que tey jii nii mën nga boolee nit ak naar mu liggéey fa benn weer ñaari weer. xam nga xaalis bi bari mu jékki-jékki ne fees naar bi xamul kooku noonu yow la xam. xamoo ndax bon yóbbaale na xaalisam parce que naar bu demee ba am ci yow confiance même boo ko lebee xaalis da la koy lebal. Mm. parce que mu ngi xalaat même bu la joxee xaalis boo liggéeyee da nga koy fay. comprendre nga yooyu noonu yëpp tamit ay jafe-jafe la yoo xamante ni bii dañ ci dañ dañ dañ koy jànkoonteel quoi. kon hmm. ay esclavage ay jàpp ay boobu noonu leen torturer gis nga laaj xaalis loolu amul li bi esclavage boobu noonu tey dama la ciy indil lu leer nañ comme li ma yàgg di wax gis nga africain bu ñu jàpp sa moroomu africain moo nekk ci ginnaaw. Hmm. africain bu ñu jàpp sa moroomu moo nekk ci ginnaaw tey jii nii. amul benn naar boo xamante ne bii dégg nga olof. amul naar bu dégg olof. naar yi dégguñu français. imaginel tay jii ni yow sa rakk ñu jàppoon ko Libye naar du la woo di la làkki arab dinaa laa sa rakk ji dañ ko jàpp affaire yooyu noonu. sénégalais mooy woote africain moom moo lay woo soit sénégalais lay doon wala burkinabé wala malien wala lu mën di doon. moo lay woo parce que tey jii nii bu la nigérien woowoon bu waxee anglais peut-être di nga ko mën tontu wax sa soxla. bu la malien woon bu waxee français di nga ko mën a tontu wax sa soxla bu la sénégalais woowee olof ngeen di wax comprendre nga bu baax te dafa am ñaari façon prison yu nekk bi dafa am prison yoo xamante ne bi prison état la bu yàlla dogalee ñu jàppale ci ndox mi yóbbu la ci seen prison yi di nga lekk di nga naan ay centre d'accueil la quoi centre merci beaucoup xool ndax la ñuy def ba rapatrier la merci yow comprendre ga mm-hmm. ci centre d'accueil yi lañ lay yóbbu di nga lekk di nga naan boo ñëw Sénégal ñu jëndal lu rafet nga sol ñibbisi. dugal la ci voilà contrairement nag dafa am ñoo xamante ne bii dëkk boo gis am na lu positif am na lu négatif mm-hmm. noonu noonu nga gis peut-être euh, état bi yor ay ay seen ay bateau mm-hmm. yor seen ay gaal noonu la amee ay réseau bandi yoo xamante ne bii seen i bateau lañ yor seen ay gaal. te xeet yëpp nga fay fekk ak nationalité yëpp. nationalité bu ne nga fay fekk. ok sénégalais moo gën a ndaw ci luy traversé di dem Italie. wallahi azim sénégalais mu gën a tuuti Sénégal ñoo gën a tuuti la ci luy traversé di dem itali comprendre nga léegi nag ñooñu noonu buñ la jàppee bandi yooyu buñ la jàppee fekk dañoo lëkkaloo ak ay africains yoo xamante ne bii supposons ñooy garder prison yi. wala ñooy nekk intermédiaire sa diggante ak naar bi. Mm-hmm. ñooñu noonu nag benn instant nii moo waral ñu naan sénégalais yi dañuy maanaam euh, libi dañuy jaay africains yi. Mm-hmm. buñ la yóbboo nag ci seen prison yi pour bëgg nga génne xaalis dañ lay maltraité. ok parce que maltraité boobu noonu merci boobu amul courage dëgg. subito da ngay woo say mbokk. même bu ñu la laajee un million da koy génn teg ci table bi. parce que dinañ la won loo xamante ni benn instant nii xaalis du la ko jaral quoi. loolu nag peut-être ñuy def reportage bon wala ñi nga xamante ni dañuy gis ay image image yooyu noonu la ñuy gis naan peut-être li bi dañuy jaay nit ñi xam nga dañ leen di traité comme esclave parce que prison yi comme Sénégal rek seen prison yi gis nga ni muy amee zaxma maanaam ni leen di paqueté. prison band yi tamit noonu la fa demee parce que tey jii am na prison yoo xamante ne Sénégal ku ko filmé woon comme comme affaire de esclavage traite négrière ku ne jàng na ko même image yi ngay gis rek tey jii nit ñi bu ko supposons bu Libyens yi gisoon loolu noonu dañuy jàpp ne Sénégal ñii xam nga ni ñuy dundee mooy loolu te am na ci ay propre Libyens yoo xamante ne bii peut-être jafe-jafe yi ñuy wax nii xamuñu ne mi ngi am ca dëkk ba foofu. Mm. xamuñu ko tolluwul foofu en doole bi ñu ko jox tollu fa tey jii nii ñun dañuy dégg ay information yoo yoo xamante ni bi ñun ñu nekk Tripoli dañuy jaaxal. fii ci Sénégal duñ ko sax yëg. comme exemple tey jii nii ñun ñu nekk Tripoli dañuy gis loo xam ne tey Sénégal yéen du ngeen ko yëg. Hmm. billaahi wallaahi talaay ñun dañuy toog Libi di gis peut-être euh, danger yi am Sénégal nit ñi ñuy rend nit ñi ñuy agressé ñun dañuy am sax dañuy tiit sax pour ñëw Sénégal. Hmm. tout récemment barki démb rek toog naa benn tali fii nii. benn tali fii nii heure làmb ji. Mhm. maa ngi gis benn gang boo xamante ne bii ay masse 37 lañ yor ak ay jaasee ku ñu dajal dañ lay rafaal jigéen ñu këf sa saak nangu sa téléphone lépp. mais man dama dama ne man banque Sénégal lañ nekk quoi. Mhm. vraiment loolu dama ci tiit te loolu noonu benn instant yi amul libi mhm. comprendre nga kon côté boo gis rek boo gisee lu positif rek. am na lu négatif. noonu la fa demee. tout dépend ci communication ak ampleur bu ñu koy jox ci communication bi. kon li bi dëkk bu neex la amul doy waar yooyu nga xam ne moom la ñuy woon gëm la parce nii nii nii ak ba sànq ni boo ma waxoon waxu dem li bi. <laughs> sawaay bu ma la ah. sawaay bu ma la waxee ne la li bi amul fay courant amul fay ndox di. non mais noonu loolu nee nañu jamono xale fi la woon. ba léegi tey neex. doo fay courant doo fay ndox. doo fay courant doo fay. libyen bi quoi libyen yi ci seen bopp pas étranger yi quand waaye étranger man kër laa fa yor du ma fay courant du ma fay ndox. libi. libi du ma fay courant du ma fay ndox te sa sa sa sa sa nijaay docteur Demba mm-hmm. en tant que président de l' association en même temps docteur. Mm-hmm. moom en même temps docteur la foofu. Mm-hmm. du fay courant du fay ndox ñi may dégg ñëpp nekk libi amul kenn ku fay fay courant amul kenn ku fay fay ndox te li gën a dee ndox bu ñuy naan. moo gën a yomb moo gën a jafe essence li ndox moo gën a cher. te état dafa fexe ba mu may leen ko te moo gën a cher. déggoo li ma ndox moo gën a cher essence dix litres essence ma tudd deux cent cinquante francs CFA dix litres. li libi libi amul dara lu ñuy jëggaani amul lu fa amul. yaa ngi dégg pourtant ñëw woon fu mu toll nii benn li bi boo xam ne ci guerre la nekk. libi bu violent libi bu bu bu dangereux ah libi boo xam ne foo tourné mën nañ jël goon door la ko ci bopp ay balu bopp ak yooyu kon yooyu yooyu amu fa quoi. ba xoolal ba dama la jox exemple <laughs> ba libi dee libi ba léegi. Hmm. xam nga yaa ngi dégg ñu naan libi nii la demee libi nii la demee mës nga dégg benn sénégalais boo xamante ni bii dañ ne naar dafa jékki-jékki rek dóor ko balu bopp. am na mais nee nañ balle perdue la. Oh, xam nga balle perdue lañ wax mais waxuñu jàkkaarloo moom dóor ko ballu bopp. Mm-hmm. te pourtant da nga koy dégg États-Unis danga koy dégg France danga koy dégg Italie Brésil tout récemment da ko fay dégg yaa ngi dégg. kon malgré que ay deewu Kadhafi dëkk bi mu ngi maintenir benn stabilité sociale boo xam ne permettre nanga am fa sa business di doxal normal indi Sénégal wala dem ci beneen réew wala sax. sa marché di dox normalement sa biir li bi mm. te duñ la buntu xatal ak yooyu noonu. gis nga li nga sàcc guddi yeeg ak yooyu noonu comme ni mu amee Sénégal fii yor sa jaas yi dugg ci boutique jàmbur saccage ko yooyu amul libi wala bëriw fa. sàcc sàcc nga wax mm. yaa ngi dégg ci ci frontières yi yu sori yi. comme li ma lay wax rek gàmmu band yi. Mm. mën nañ fa nekk. libyen yor oto ñu jaay ko doole nungu parce que dëkk ba peut-être amul gouvernement benn benn sécurité bi amu ko parce que du ma ne am na sécurité à cent pour cent mais supposons tey ji nii comme ni ko gars di waxee comme quoi que jàpp nañ ne libi boo génnee rek gars yi jàpp la wala libi boo defee nii rek gars yi dóor la balu bopp gis nga naar kii di employé am kii di jabaram kii di doomam la gën a fonk ka rakk jum bokkal ndey ak baay employé bi même employé bi koy liggéeyal ah mm-hmm. moom la gën a fonk ka rakk ju mu bokkal ndey ak baay comprendre nga baax waaye dañoo raciste nag. non raciste parce que yombu leen yéen pour ngeen am fa jabaru libyenne ah. am na ñu ko fay am na. des mais nag du nekk koo xamante ni peut-être day am jëkkër maanaam jëkkër ji gaañu. ok ok xam nga. nga am fa jabar am na ko fa am quoi. waaye mm-hmm. mais nag yombul quoi te ci côté racisme boobu noonu ngay wax tey jii nii suñu dëkk bi nii Sénégal kan moo leen gën a raciste. ay la moo ndereng ak yooyu noonu ngay dégg kan moo ko créé. sénégalais te pourtant loolu noonu. ay ay ñàkk ak ay làkkkat bi sax ay làkkkat bi suñu biir ay xongo nopp. Mm-hmm, mm-hmm. loolu yooyu yooyu parole ban moo ko gën a nekk parole racisme. ah. ay peut naar yi yaa bett lañ lay wax ay nit ko ñuul ki nit ñuul ki lañ waaw nit ku ñuul ki lañ lay wax. amul traité de golo de malade. non non non non. ak peut-être nag benn instant nii mën na la laaj ndax yow muslim nga wala doo muslim. su fekkee ne muslim nga da ngay dégg ñu ne la alhamdulilah. Hmm. yaa ngi dégg commencé boole la ci seen bopp. ñun ñii nga xamante ne bi benn instant nii dañuy dund biir li bi xam nga racisme boobu noonu ñuy wax dañuy toog ak naar yi di lekkandoog ñoom di naanandoog ñoom di bokk kaasu kafe mu mu guux jox la nga guux. <laughs> comprendre nga bu baax a baax a baax. di bokk moom xam baax na wax quoi parce que. supposons toll nañu foo xam ne quand ñu bari dañu yaakaar ne dëkk naar yi euh, bëgguñu nit ku ñuul fu ñu la gis ñoo ngi lay fexel de wala musiba. voilà duñ nangoo sax am ak yow yenn relation yi donc mit yu mel noonu baax na yéen ñi nga xam ne yéen dëkk ci dëkk naar yi wala dëkk arab yi du nord en tout cas dans le Maghreb te ngeen xamal ko nit ñi. xam nga dafa am loo xam ne dafa am. gis nga nit nu la jàppee rek ci yow la. su fekkee ne da nekk ci dëkku naar wane sa bopp ne yow miskin nga. waaw ñu traité la noonu rek. noonu lañ lay traité. nit da gëm sa bopp fonk sa bopp naar yi gënuñu ñoo jantal gënuñu ñoo set dàquñu ñoo solo te ñun ñu ngi liggéey di am xaalis kon ñoom ni ñuy jëndee yére bu cher di sol ñun dañ koy jëndee yére bu cher di sol di xeeñ parfum bu neex gëm suñu bopp yaa ngi dégg di dawal ay oto yu tooy comme ñoom. comprendre nga bu baax mais benn instant yi boo fekkee nit ñëpp solu xam nga naaj yow nga sol say sagar toog lan la lay jàppee. même yow mii sax ni ngay nekk Sénégal ni ni ni bu nit ñi soloo ba naaj nga gis koo xamante ne bii dafa solit sagar fee ne gëmut boppam est-ce que doo ko ci boole nañu waxante dëgg rek même Sénégal fii nii nga nekk koo xamante ni bii yow leer na la kii nii gëmut boppam doo ko boole ci sa bopp noonu la fa demee libi te libi rek ngay gis koo xamante ne bii supposons tey jii dangaa am patron. soxla Touba léegi urgent mu taal otoom vite fait yóbbu la nga dem rek la say problème ñëwaat même bu dul patron sax mën nga am xarit sa xarit sax mën nga am soxla Touba léegi mu taal otoom vite fait yóbbu la nga rek la say problème ñëwaat da ngay nit ku ñuul libi rek la am benn libi mooy dëkk boo xamante ne bii boo nee cëpp tey bu la neexee suba nga xëy liggéey hmm? lu leer laa lay tegal tele la ñuy waxee te gars yi dinañ def ci commentaire dinañ def bu du dëgg nañ ne ma du dëgg benn libi mooy dëkk boo xamante ne bii boo ne cëpp tey suba bu la neexee nekk ingénieur ak domaine boo ko bëgg a doon yaa ngi dégg ñu lay jàngal di la fay libi la jàngal métier di la fay am. Hmm. lu leer laa lay tegal nii. di la jàngal liggéey di la jàngal liggéey di la fay journée. ba ni ngay dem ba ber yoonu bopp kenn du la sonal ci dara libi rek la am. peut-être suñu problème majeur comme li ma la waxee mooy problème mu papier ak problème mu nu ñuy envoyé xaalis. Mhm. wala sax respecte charte dëkk bi parce que dëkk la boo xam ne quand se c'est un état euh, islamique charia moo fay dox boo ñëwee ci ab dëkk vraiment da nga war a tënku ñu tënkuwul c'est normal que donc ñu am ay jafe-jafe. yow dafa mel ni xam nga li bi mhm. problème yu ci bëri nag ngay dégg ñu naan nit ñi am nañ problème ak naar noonu la fa demee. ñàkk tënku la rek ci. naar boo chartoo ci boo tënkoo ci charte dëkkam. Mhm. moom comme ni mu ko respecté. boo ko respecté waxuma doo am problème de mais du gaaw parce que dañuy dem ba dañ lay boole ci seen bopp sax mais imaginez tey jii nii nga dem ci dëkk bëgguñu ngay ànd ak jigéen. te dëkku charia yow ngay te dëkku charia ngay ànd ak jigéen ngay ànd ak jigéen boo takkul léegi bu buñ la jàppee doo nil sa bopp problème. waaw même ñoom naar yi nga xamante ne bi ñoo dëkk biir bi boo ànd ak jigéen ci oto ba bu ba arrêté leen. di nga wane këyit bu leer nañ buy wone ne sa raq la wala sa mag la wala sa yaay la wala sa jabar hmm. lu leer laa lay tegal nii soo ko wonewul am na booboo yoo xamante ne bii boo ci dalee dootoo ko nettali. Hmm. ay sanctions lañ lay yóbbu comme fu ñu ne comme comme comme prison bi Sénégal nuñ ko tuddee. déjà non non am na beneen. Kamaneer. Euh, waa fii waay. dig comme nga ne dig yaa ngi dégg lu leer laa lay tegal nii ñoom libyen laa la wax de nga ànd ak jigéen boo xam ne du sa mag du sa rax du sa yaay du sa jabar dootoo ko def léegi nag gën ñoom ñoom ñoo koy def ñu nekk ca dëkk ba hmm. gën yow mu fa dëkkut ngir laay war a suul yi doo yem ci liggéey. waaw waaw boo ñëwee ci dëkk jàmbur moom. wax boo demee ba am koo fa xemmem takk ko ci farataak sunna ut sa papier de mariage. waaw bis boo leen génnee bu leen naar arrêté dina gis papier de mariage bu fiable. nga xam ne kii xam kii nii sa jabar la. mais boo ko defut bëgg lu yomb tax nga dugg ci loo xamante ne naka su dul kon comme comme yaa ko comme comme xam nga loolu rek jeex na parce que am na loo xamante ni bi tey boo ko waxoon nañ naan day yàq der mm-hmm. mais xam nañ bu baax a baax a baax li may wax jeex na tàkk dund ga am Europe ak gi am Libi bokkut mm. dund bi am Sénégal freedom ak bi am Libi bokkut mais su fekkee ne benn instant yow ni ngay dundee Sénégal noon nga bëggee demee Libi dundee noonu yaa ngi gasal sa bopp bàmmeel mm. wala yaa ngi dugal sa bopp ci ay tooxi doona problème yi ngay dégg yëpp noonu la fa dem maanaam boo ñëwee liggéey respecté ñoom seen doxalin respecté seen dundin da ngay am jàmm. wallaay jàmm rek ngay am. man du waxantu te ku ma xam-xam ne ne du ma waxantu. su fekkoon ne benn normalement mooy da ngeen war a fexe ba que quand mën a voter normalement parce que yéen jàpp naa ne gis ngeen voter kon ci élection Sénégal. bëgg nañoo voter même élection yi nii di ñëw nii ñun. bëgg nañoo voter élection yi di ñëw nii pare nañ pour voter mais naka lañ koy defee. waaw loolu c'est grave nañ ñu dimbali ngir yàlla. waaw jàppale ñu. Mm. nañ ñu yónnee consul. wala ñu yónnee ñu ambassade wala ñun ñu autoriser ñu ñun association bi. ngeen créer seen ambassadeur. ñu autoriser ñu ñu créer suñu ambassadeur boo xamante ne bi ci suñu biir lay jógee. waaw. comprendre nga bu baax. wala ñu légaliser ñu suñu cachet. ñun suñu kase association ñu légaliser ko. Sénégal fii wala ñu jox ñu cachet bu may dem na ma gouvernement recevoir bu may dem ñu paqueté cachet bu baax. boo xamante ne bii ambassade Sénégal la ñu jox ma. pour ñun bu ñu manee renouveler suñuy passeport ñu koy renouveler wala prolonger suñuy passeport ñu prolonger ko ci cachet boobu. waaw mais nañ leen jox nga xamante ne bi bu ñu mënta yónnee ñu ñu defaral ay passeport. waaw na légal rek nañ leen ubbil ambassade loolu. mën wallaay loolu lañ bëgg. loolu jafewu leen loolu lañ bëgg te jàpp naa ne boo leen ci jàppee rek. non dinañ ko dégg loolu moom c'est sûr et certain. gaa yëpp dégg ci vraiment dafa am benn problème diplomatique boo xam ne euh, dafa yàgg fii diggante ñaar réew yi. bon je pense que bu ci autorité yi séggéere dina dinañ ko mën a régler rapidement euh, fexeel nag ba mën a balaa ngaa dellu rencontrer en tout cas le le ministre des affaires étrangères. war mhm. sax ay ay employé am. Mhm. dem fa bind lettre dem déposer ko nekk on a besoin de vous rencontrer. te dinañ ko def bu ñu ko defee léegi. gis nga lettre bi dinañ mën a ubbi ambassade. loolu gis nga lettre bi association bi toog nañ tënku ñun ñëpp. Mhm. xaatim benn lettre lettre bi mu ngi ak man. bu ñu gisoon fu ñu ko déposé suba suba suba ñu déposé. suba dangay ngay dem fii nii ministère des affaires étrangères. jeex na nga yóbbu ko fa da dem déposé lettre bi. ñu déposé ko fa. waaw déposé l' nañu gouvernement Sénégal gees audience. ñun bu fi nekkee ñoom ñoom ñoo ngi fi mu toll nii. ñun yàlla dogal na. waaw wallaahi Azim soxlaa ñu ci gouvernement Sénégal dërëm. ambassade rek ngeen soxla. wallaahi ambassade lañ soxla wala consul kese. warul jafe. soxlaaw ñu fa dërëm te imaginer depuis 2014 ba léegi ñi fa am ay doom seen doom juddu seen lépp amuñu ay papier tamit non ëpp moom wax dëgg yàlla ñaaw te war a dugg école war a def lépp ñaaw na ñaaw na trop beneen affaire la quoi ñaaw na parce que am na ci même Sénégal ni ngay gis nii bari na ay étudiants yoo xamante ni bi ñu ngi libi te dañuy am problème étudiant arabe ñu ngi libi di jàng comprendre nga léegi ñooñu bu ñu bëggee voyager seen passeport jeex fan la ñuy prolongé kon fan amee seen passeport il faut ñëw ba Sénégal il faut man lan moo ma indi Sénégal passeport buy waaj a jeex profito ñëw Sénégal est-ce que noonu noonu tey jii nii moom profito est-ce que keneen mën na ko parce que imaginer tey jii ni ku bàyyi est que mën na profito hmm. passeport di waaj a jeex. déjà yow def nga cinq ans li bi voilà te passeport ñun ñëpp xam nañ ne. cinq ans lay def cinq lay def. comprendre nga. Hmm. mu mën a profité vite fait ñëw defar passeport am delluwaat. am na ci ñoo xamante ne bi tey jii nii seen passeport jeex na depuis kañ. ñoo ngi toog namm nañ seen yaay namm nañ seen papa. mënuñu ñëw mënuñu risqué. ñëw parce que tey jii nii peut-être lañu lañu lañu lañu yor li bi maanaam liggéey ba ñu yor li bi suñ ko bàyyee woon tey jii nii dagg laissez-passer ñëw Sénégal nii mën na am ay chômeur lañu doon. Mhm. yaa ngi dégg ñu ngi xalaat tey jii nii est-ce que bu ñëwee dinañ delluwaat seen yaay namm nañ leen ñoom namm nañ seen yaay. Mhm. mais amuñu amu amuñu amuñu choix. Mhm. parce que choix bi mooy lan mënuñu fa bàyyi seen liggéey ñëw fii nii Sénégal di toog xamuñu ndax dinañ liggéey wala duñu liggéey. Mm-hmm, mm-hmm. loolu mooy problème bi l'essentiel en est que daal nañ ñu dimbali ngir yàlla te yàlla mm-hmm. tax. yaa ngi dégg euh, monsieur le président Macky Sall su nekkee ne yaa ngi may dégg maa ngi lancé appel. man Mara Ndiaye le secrétaire général association des sénégalais bi nekk Tripoli ñu ngi lay ñaan nga yónnee ñu consul wala ambassade wala nga recevoir ñu nga mën a toog ñu toog ñun ñu wax la réalité bi nga xamante ni benn. parce que quand même économiquement. Mhm. la diaspora sénégalaise ci dëkk boobu war nañu mën a ànd lu bëri ci mbirum demalante ak dëkkalante quand même. tout récemment gis nga Covid 19 bi nii. Mhm. jamono Covid 19. wallahi lañ toog association bi nii di waxtaan. mu leeral la ne ñun suñu amoon privilège yoo xamante ni bi peut-être ñun mën nañ ñu yombal sax ñu indi ay conteneurs. Mhm. mën nañoo appuyer lu bëree bëree bëree bëri ci ci ci ci Sénégal fii. parce que bu dee matériel lu mu ci mën di doon médical ak lépp yomb na fa. Mhm, mhm. yaa ngi dégg te ñun am nañ xolub yëkkati suñu alal jënde ko ay matériel indi jàppale ko Sénégal parce que suñuy papa fi nekk suñuy yaay suñuy mag suñuy rakk. Mhm. te ñi ko ñeneen ñi di defee di appui ci Sénégal ñun lu raw loolu noonu lañ ko mënee. waaw tout récemment rek aide bi ñu doon def ci ci ci ci euh, bi. man bi ma cliquer ci lien bi damaa rus. wallahi damaa rus gisuma ci sax li mu leer la ne mm. voilà dama sax ruus mm. mu leer la ne benn essence ni peut-être mm. bon ñun fàtte nañ ñu ko quoi. yéen amoo leen boolewuñu leen ci. doo cliquer doo gis sax li bi. boolewuñu leen ci boolewuñu ñu ci. ah parce que c'est normal parce que amuñu ku ñuy jokkalanteel foofu. voilà pour ñu war leen ko mën a yóbbal. noonu la fa demee te moment boobu noonu fekk nañ ñun wallahi azim ñun ñuy dund li bi pare pour jàppale Sénégal. ñun seentu ñu xaalis bi mais ñun dañu doon xool ban moyen la ñuy def. pour ñun voilà lu ñu am ak as néew merci beaucoup ñu billaay wallaay ñu jàppalee ko gouvernement Sénégal parce que amul lu yombul libi amul lu fa yombul comprendre nga kon bu yàlla dogaloon benn instant ni peut-être ñun ñu am privilège boobu noonu tey jii nii même waxuma Sénégal appuyé euh, gouvernement Sénégal appuyé ñu de mais ñun mën nañoo appuyer Sénégal mm. mu tuut a bari parce que ñun am nañ volonté boobu noonu am nañ yéene boobu li may wax daal mooy bu ñu jaawalee ñii ñëw libi pour jàll ak ñi ñëw libi pour des fois. ok monsieur le président y a des milliers de personnes yoo xamante ni bii ñu ngi libi yor fa seen i jabar yor fa seen doom libi rek la moo leen tax a jóg. te ñu ngi fa bëgg nañoo ñëw Sénégal di delluwaat comme seen ay morom te problème mu papier moo tax mënuñu ko quoi. merci beaucoup. Mhm. monsieur Mara ñoo ngi lay jaajëfal li nga wax am na solo. Mhm. ñu bàyyi la rek nga tëj xanaa nuyuwaale sa naataango sénégalais yi nga xam ne ñoo ñu nga bàyyi libi. Mhm. waaw euh, maa ngi leen di gërëm. bu baax a baax a baax di jiital ci ngërëm bi nag vraiment sama sister muy mati trois pommes koo xamante ne bi wax dëgg yàlla femme bu brave la jàmbaar la te jafe-jafe euh, immigré yi rek moom moo ko ñor quoi wax dëgg yàlla dulli bi rek la ko yemale fu ne la ko yemale di la remercier yow tamit parce que vraiment bi ñu mati boolee bi ñu la wooyee wax dëgg yàlla euh, liñ doon séentu ci yow lépp gis nañ lu lu lu lu kawe njort bi quoi mm. vraiment di gërëmaat waa Libi surtout commencé ko ci suma président sama vice président Aliou Baldé sama adjoint au secrétaire xam nga sama gars yi ñoom Ahmed Dramé xam nga gars yooyu noonu yëpp ñoom ñang baalo ñëpp maa ngi leen di béggee woy sama booy yi maa ngi béggee ñëpp ku lim da ngay juum xam nga di nuyu waa Benghazi seen président monsieur Ngom xam nga di nuyu waa Saba aussi seen président lamin Dramé ak ñëpp waaw di leen wax ne leen bon seen doom la seen frère la Mara ñëw fii nii comme ni ngeen ma ko waxee ni ngeen ma yónnee pour jooytu li nga xamante ni benn instant ni mooy suñuy jafe-jafe. Mhm. di remercier ñëpp di remercier sama famille fii nii Sénégal bon di ko commencé ci suma grand frère yi ba ci sama soxna. Mhm. xam nga ñu ngi bëggee ñëpp di jaajëfal ñëpp sama gaay ak ñëpp di nuyu ñu ñuy seetaan ak ñi nga xamante ne bi vraiment tayo ñu di commentaire di def lépp ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp quoi. di remercier encore Sénégal di leen wax ca kaw ca kanam mu dem ba sut ci site yi ci àdduna bi yëpp quoi man may Ablaye Seck. dinaa ko may jabar di la jaajëfal yow tamit dina ci baax torop nag. non dinaa ko may jabar am naa am naa benn doom boo xam ne kër ga lekk rek la fa nekk dinaa ko ko may. <laughs> waaw jërëjëf Mara <laughs> merci beaucoup mbokk yi di ñëw di jaajëfal ba beneen mm-hmm. yoon ak beneen invité fii ci senego point com. Mm-hmm. jaajëf.